yow rab dalaa jàpp wala junne dalaa tonga ah yow ñaata at nga toog fii di ko jànku amoo jëkkër soo gisee ku la bëgg jabar doo dem anta dama ko bëgg ba xam ne tuma xamakuma nan laay def nan nga ma mën a expliquer wala ban explication nga may jox yow nga am jëkkër di génn sa kër di seeti góor te tàggoo sa jëkkër est-ce que ya, xam nga mbëggeel li mën def loo nit yow man ngay wax mbëggeel man mi nga xamante ne expert la en love en même temps jeune entrepreneur tout gasee sa vie dans la love yow nga ni yow man ngay wax mbëggeel lu am ci kaw suuf dëgg na te yow nekkoo sama soxna man amuma dara hmm? d'accord amul problème tuuti man ak yow xanaa duñu ay li nga mën a wax keneen ak keneen pourquoi mënoo ma ko wax man je te dis tout man nëbbuma la sama dara. maa waxaatuñ ko dara ci man. Hmm. yo ay man yóbbu nga sama fit bi yëpp de yow paa mu la woo moo ngay tëb nii di dal ay ta mënoo dal yow tam affronter kii yow lan la. Mardi sur Keman Vision.